bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci àjjuma ji nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci rakki gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom xam ngeen ne sunu borom bim nu wàccee ci kaw suuf da cee jublu ñu nekkal ko fi nekkal yàlla ci kaw suuf nag moom la ñuy wooyee nekk xalifaam ci kaw suuf ku bëgg a nekkal yàlla ci kaw suuf nag dangay ngay góorgóorlu ba nga xam ne li yàlla bëgg ci ci ay jëf moom ngay jëf li yàlla bëgg ci ay wax moom ngay wax lu ci mën a feeñ ak lu ci mën a nëbbu li yàlla bëgg rekk moom ngay sàmm moom la ñuy wax ne al ibaadatu ismun jaamiun li kulli ma yuxibuhu llahu wa yardaahu min al aqwaali wal aamaali al zaahirati wal baatina kon nekkal yàlla ci kaw suuf di wax la mu bëgg di jëf la mu bëgg loola mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag kon di baat bu yaatu boo xam ne li mu ëmb bari ba tax laxasaayu di liggéey di daan sa doole ngir mën a ñoŋal sa ngor ngir mën a sagal sa bopp ngir nga mënal sa bopp doo doo fab sa loxo di ko tàllal kenn kon loola bokk na ci jaamu yàlla moo tax yonent bi neen alayhi salaatu salaam doomu aadama lekkul lu gën la mu liggéey ma akala ahadun taaman qattu xayran lahu min amali yadi moo tax lislaam am na liggéey yoo xam ne démb ak bëkk démb dañu ko daan xeeb moom nag mu amal ko solo te mën na mën nañ cee tudd ñaar mooy di sàmm ak di jaay matt ndax bu dee sàmm ku tedd ko nee na ma min nabiyin illaa wara al amul benn yonentu bu yàlla ma su yónni te jaarul ci sàmm ak jur kon sàmm ëpp naa xeeb bu dee jaay mat wax na ne nit ki jël buum dem taxansa yu mat yanoo ko jaay ko facc ay soxlaam moo gën muy laaj nit ñi bu ñu ko joxee ak bu ñu ko joxut yépp loolu moo gën kon gis ngeen ne liggéey nit ñi ñoo koy xeeb waaye lislaam xeebul benn liggéey bu dagan liggéey nag lislaam ni mu fonke julli te néew na lu muy tudd julli te du ca teg liggéey wala jeexiit liggéey ndax fab sa alal di ko def ci yoonu yàlla kiy liggéey moo koy man moo tax mu ne wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun kon ñi nga xam ne dañuy taxawe julli ak ñi nga xam ne dañuy fab ci seen ñax di ko def ci yoonu yàlla ñooñu fu mu tuddee kii day tudd kee bu ñu demee ci saaru jumaa euh, dañuy gis ne yàlla sunu boroom ni mu soññee jaam ñi ci bu ñu déggee nodd ñu lagg dem julli ji noonu la leen soññee ci bu ñu sëlmalee ñu lagg dem daani seen doole fa ida qudiyat alsalaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah bu ñu seetloo tam ci alquranul karim dañuy gis ne ñett ñi nga xam ne sunu boroom da leen jox ngant liggéeykat bi ca la bokk ngant li mooy ngantul lan mooy jàng alquran ni mu baaxee ak ni mu màggee am na ñett ñoo xam ne sunu borom nee na Euh, duñ ko tal duñ ko tal ba nañu ko bëgg ak nañu ko yéene ñu koy defee noona euh, ba ci ka ci jëkk mooy ki yaramam naqari ki wéradi la mu yéene ci jàng alquran du ko tal ndax wéradeem kii daan doolem tam la mu yéene ci jàng alquran du ko man ndax euh, jotam waaye ka nekk ca toolu xare ba di jihaad fi sabilillah tam na mu yéenee ja na mu du ko mat ndax da dul tal moo tax yàlla wax ne faqra'u ma tayassara min alqurani alima an sayakunu minkum marda wa axaruna yadribuuna fi ardi muy kii kër kër yi di daan dooleem wa axaruna yuqaatiluuna fi sabilillah mu teg ci nag ne kon faqra'u ma tayassara minhu ñooñu moom yàlla jox na leen ngànt nañ ko defe nañ ko mane liggéey nag fara googu mu far moo tax ku baax ki ne sàkku lu lew day farata farata la ci jullit wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahami xam ngeen ne sàkku lu lew boo gisee ku baax ki di ci soññee dafa jàngale ne euh, boo sàkkoo lu lew ba am ko di ko jëfandikoo mooy tax ñu nangu sa jaamu yàlla waaye kiy jaamu yàlla tey jëfandikoo lu daganul kenn du nangu ak jaamu yàlla am yàlla nanu ci yàlla musal moo tax mu ne laa yanfau l ilmu wala al bil akli xaraami inda saada محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول kon xam ngeen ne boo dee euh, liggéey ba am lu lew di ko jëfandikoo day tax ñu nangu sa jaamu yàlla ba ca tege moo di bu fekkee say cër dafa tayeel ci jaamu yàlla na xool li ngay jëfandikoo ndax kiy jëfandikoo lu lew jaamu yàlla da koy yomb euh, moom la yàlla wax ne yaa ayyuha rusulu kulu min at tayibaati wa amalu euh, ku baax ki ne fa kul xalaalan in aradta an tuti wallah wa rasula ya hada al yow mi bëgg a topp yàlla ak yonent bi da lekk lu leew boo dee ñaan tam kenn ku ne ci nun day dékk yàlla ay loxoom di ñaan na nga xam ne la ca gën a gaaw mooy ngay jëfandikoo lu lew am na ci saxaaba yi ku sàkk woon ci ku tedd ka ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am ijaaba mooy lu ma ñaan yàlla nangu ko mu ne ko atib mataamak tustajab daawatuk del de lekk lu leew kon loo ñaan yàlla dana ko nangu kon euh, liggéey li ci nekk ci ay njariñ xajul ci waxtu wi ndax soo liggéeyee nag ba am wolof dane lu ne kët lu ne jonn moo koy moo koy faj soo liggéeyee ba am danga nga mën a teral say waajur soo liggéeyee ba am da mën a jokk sak bokk soo liggéeyee ba am danga nga mën a euh, teraanga da nga ko mën a séq ak nit ñi soo liggéeyee ba am da nga mën a joxe azaka da nga mën a aji màkk da nga mën a berndeel say gan moom daal lu baax loo bëgg a def da nga ko def bu ñu seetee nag ci jamono jii dañuy gis ne euh, njaboot gi gone yi ak sax lenn ci mag ñi ak jigéen ñi ak tuut tànk yi ñoom ñëpp dañoo màbbu ñoom ñëpp nag bëgg génn réew mi ne dañuy daane seen doole lu tax nag ñëpp di mab màbbandoo mooy dañuy gis euh, biir réew mi dañuy gis ne ñi nga xam ne ñoo am alal ñoom la ñuy yëkkati ñoom la ñuy teral ñoom lañuy sagal ñoom la ñuy fonk waaye ñi amul kenn du leen teg fenn loolu nag képp koo ko gis danga naan naa wuti ndax ma am ndax su ma amee ñu man maa teg ca kaw am na ñoo xam ne tam seeni way jur ñoo leen dul may jàmm dañ lay xas naan la ponkal mu ne léng te doo faj gàcce say moroom ñi nga faj seen gàcce di la xas euh, ba loola moo lay ñuluk ba dootoo mën a euh, dootoo mën a toog am na ñoo xam ne dañuy xeeb métier muy liggéey yi am ci réew mi dañ koy xeeb di wuti loo xam ne moo gën a gaaw te nit ki dafa war a xam ne li yàlla bind ci ab jéem faaw mu jot ci ndax xadis ba nee na yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla tey sàkku sàkku bu rafet ndax nit balaa faatu li yàlla bind cib jëwam faaw mu jot ci lu mu yeex yeex te sëñ bi nee na wala yakunu gayru ma yuridu walaw xarista mu muridu loo loo loo mën a def itam yàlla moom li mu dogal noppi na ca bokk na ci li tax ndaw ñi di màbb di ne dañuy génn réew mi moo di dañuy gis ñi nga xam ne dañoo liggéey ba am dañuy yàq dañuy pasar pasari su ko defee nag nga ne mayitam naa wuti ndax ma am lu ma pasar pasare te nit wërta am sax lu muy pasar pasaree yàlla nee na wakulu washrabu wala tusrifu day leen lekk ak naan ak xewloo xéewloo xéewi yàlla yi waaye bu leen euh, pasar pasaree bu leen yàq ab jullit rawatina taalibi day diggu doomu du ëpp du yées wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bokk na ci li tax gone itam di màbbu mooy dañuy gis ne euh, dëkki taax yi dañuy gën a taaxe dëkki kaw yi di euh, dëkki àll yi di gën a àlle kon nag loolu ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi war nañoo xoolaat seenu doxaliin fexe ba kenn ku ne fa nga dëkk ñu teg la ci ay anam yoo xam ne da nga fa mën a daan sa doole mën faa liggéey te doo fàq di dem ca dëkki taax ya su kenn ku ne toogoon fa mu dëkk nag di fa liggéey lépp jàppante ci moom kon kenn du sonn di génn fa nga dëkk di gàddaay di dem ca taax ya wala ngay dem ci bitim réew bay faatu ci yoon wi te li ci faatu fi mu toll ay junni junni la yoo xam ne ku la ne euh, lim bi nàngam la day wax rek la ko soob waaye kenn xamul ñaata ñoo ci faatu bokk na ci tam liggéey bi nga xam ne ñépp ko war a def Euh, bokk na ci yi ñu seetlu ci jamono ji mooy euh, ñi am gannaaw dañoo bari te ñoom la ñuy fonk ñoom lañuy teg ci kaw euh, ñi amul dañuy wut te nuñ ko amee rek baax na moo tax fi ñu toll ñuy toj këri jàmbur yi di dogali nit ñi di dal ci seen kaw di nangu seen alal xam ngeen ne wolof nee nag ku fa bàyyiwul lu ñu simmi ku fa bàyyiwul lu ñu simmi lu ñu wekk moom mënta wax kon dañuy dal ci kaw nit ñi ngir bëgg a euh, bëgg nangu lañu yore ndax ñu man caa tedd saa su nu ngay dégg ñuy dal ci kaw ay nit di leen agressé di euh, songu këri jàmbur yi di fab seeni alal yooyu yëpp dañoo gis ne daal jamono ji jamono la joo xam ne daal ku am daal yaay ka ñuy fonk yaay ne ca kaw waay ki amul kenn du ko teg fenn nañu xam ne nag sàkk lu leew moom euh, bi mu waree ñëpp ku baax kii da koo ñaan da koo ñaan ba tàyyi euh, an qis yaali min addalaali oo bil xallit sara yi kon ñi nga xam ne ñëpp dañoo ne ci ginnaawam lay seen ndam lay seen pas mooy futiku di liggéey te xam ne ñaanoon na ko laka shukuri ya ala alxalaali yaa maaxiyal imlaaqi wa dalaali kon daal nañu xam ne doomu aadama bi ko yàlla wàccee ci kaw suuf mu nekkal yàlla ci kaw suuf moo ko fi indi te bokk na ci nekkal yàlla ci kaw suuf nag ngay futtiku di faste xànc ak xànc di daan sa doole ndax soo liggéeyee ba am nag ca ngay mën a faje gàcce waaye ca ngay mën a nag jaamu yàlla dëgg-dëgg jaamu yàlla ndax jaamu yàlla yi nga xam ne alal moo ko man ku dul liggéey ba am alal doo ko mën a def bu loolu jàllee nag xam ngeen xutba bi nga xam ne moom la al imaam di waaje jàng nii suñu ko dee tënk dañuy wax ne ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonent bi dafa wax ne maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp nañu ragal yàlla ndax képp ku bëgg a texe da ngay ragal yàlla maa ngi leen di moytuloo mooy yàlla ndax képp ku mooy yàlla ëllëg da nga perte kon nañu taqoo topp yàlla ndax topp yàlla ci la ngërëmul yàlla nekk maa ngi leen di tere ngeen topp seen bànneex ndax képp ku topp sa bànneex danga nga sànku maa ngi leen di digal ngeen di gaaw a tuub balaa faatoo ñëw euh, na ngeen xam ne yàlla ku koy bàyyi xel mu bàyyi la xel yàlla nee na wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah kenn ku nekk la nga jëf soo demee ci yàlla da nga ko fekk mu ne na ngeen moytu jamono jii jamono la joo xam ne lu baax dafa tuumuranke dafa néew waaye ab safaan dafa bari kenn ku nekk yaa ngay kër kër yi di wut àdduna di sàggane dee te dee moom ku ko sàggane itam faawu day ñëw mu teg ci na laa xawla wala quwwata illa billah nee na diine day tumuranke na ba muy door a wàcc na mu tumuranke woon fi mu toll nii àggaat na foofu dafa tumuranke kenn amul pexe ci tumuranke gi nga xam ne diine tumuranke na ko ndax bu ngeen seetloo ca baytul maqdis réew ma nga xam ne mooy saalisul xaramay ni xam ngeen ne ña ngi fay rey ay jullit yu takkoo takkoo takku lu matul weer rek juróom-ñeenti junni jullit rey nañu leen te ci ëpp ay ndaw lañu ak jigéen kon nag diine na mu tàmbale woon tumuranke ba tey àggaat na ci di tumuranke loolu nag kon dañu koy diis yàlla waaye bu ñu boole woon doon wenn say kon euh, ku ku yepp lislaam du du yàpp lislaam nee na nañu xam ne yowmal qiyaam daal bis la boo xam ne ku ko bàyyiwul xel danga fa am gàcce ndax mooy bis bi nga xam ne yàlla rek ku fa mucc yàlla moo la musal nee na bokk na ci xa nekk na ci xadis nee na bokk na ci texe di nit ku waw bët mooy ku ñàkk kersa ak ku waw xol mooy koo xam ne kenn mënu koo waar ak ku bëgge nga xam ne du doylu ak koo xam ne day mébét rek nee na sunu borom day su guddee dana dékk loxoom ngir bëgg ki koy tooñ ci bëccëg tuubal ko su guddee mu dékk loxoom ngir bëgg ki koy tooñ ci bëccëg mën koo tuubal mu ne yàlla nanu yàlla boole jégal xut xutbam ñaareel bi nag bi mu sante yàlla julli ci yonent bi nee na tàggante gi nga xam ne moo xew ci jamono ji de jaaxal na ko ndax saa su ne ñuy waare waarekat yi ñi ngi waare waxtaankat yi ñi ngi waxtaan kilifa yi ñi ngi digle ñi ngi tere waaye dafa mel ni daal nit ñi amuñ ca soxla ndax da ngeen a defee ne da ngeen sax ci àdduna wala da ngeen a defee ne du ngeen faatu wala bu ngeen faatoo kenn du leen dekkal ana ñi yàlla yónni woon ana wàlli ana ñu baax ña ana sëriñ bu mag bi ana mag ñam àndaloon ana xeet ya jiitu ana seeni baay ñoom ñëpp ñu ngi ci biir suuf kon nag loolu ku mu tooyulul sab xol sab xol dootu tooy nee na nag kon kenn ku ne ci ñun na xam ne dana faatu kullu nafsin zaiqatul mawt wa nabluukum bi charri wal xayri fitnatan wa ilayna turjaun kenn ku nekk danga faatu yàlla nag day xool nit ñi ku ci def ab lu baax lam lay fayee ma ngay tege waaye ku def safaan lam lay fayee ma ngay tege nee na dikk na ci xaadis ni dee leen faral di wax laa ilaha illallah bala ñoo ñoo dox seen digganteeg moom ndax nit ki bu ko talee di wax laa ilaha illallah am na foo xam ne su fa àggee ci wéradi wala yaram su wala yaram xaw a diis dootu mën a wax laa ilaha illallah kon nag bala ñoo dox sa digganteeg laa ilaha illallah lee ko waxal sa bopp ku ci am ku wéradi dem ba nga ragal ne day génn àdduna dee ko ko sax de ko wax ci wetam mu di ko dégg ndax mu mujj ci moom nañu xam ne euh, ki gën ci nit ñi mooy ki gudd fan te nekke woon ci àdduna lu baax waaye ki yées ci nit ñi mooy ki gudd fan ba noppi nag nekke ci àdduna ab safaan ndax ki ki fan te def lu baax day bari ay yiw bari ay tuyaabo waaye ki gudd fan te doon def ab safaan day bari ay bàkkaar bari lu mu tooñ suñu borom mu ne yàlla nanu yàlla boole jéggal te jéggal mboolem ñuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon bu ñu del sewaatee nag ci li ñu tàmbalee woon nañu xam ne kon di léggéey di daan sa yi daal ni ma ko waxee woon soo ko dee def euh, la muy jur ci ay toyaabo kenn xamul nu mu toll ndax day wane ne yow da nga sukkandiku ci sunu borom ndax dëgg-dëgg tawakkul mooy ki nga xam ne Euh, dafa euh, dafa dafay dafay daan dooleem ndax da ngay xam ne yaa ngi euh, waslu àq waaye nag kiy joxe mooy sunu borom waaw moo tax mu ne bu xasbuka min tawakkulin an la tara mujjiri rizqika siwa rabbil wara wakkiilu dëgg-dëgg mooy nga xam ne loo am yàlla moo la ko jox waaye du tee na ngay daan sa doole te nit ki bu dee liggéey bu yàggee day sawar njaxlaf waaye ku dul liggéey da ngay ker da ngay taayal te ku taayeel euh, ker sa àdduna du baax ndax kuy wut àdduna da sawar kuy wut yàlla tam da sawar moo tax xadis bu wax ne jullit bi am kàttan njaxlaf sawar moo gënal yàlla jullit boo xam ne dafa euh, taayeel dafa néew doole al muminu al qawiyu xayrun wa ahabu ila allahi al mumin al moo tax sëriñ bu mag bi wax ne yàlla ba muy sàkku nit ñi ba muy sàkk nit ñi la tax mu sàkk leen bëgg seen jëmm yi di sonn ci santaane bi yàlla wa xuliqal badanu xiina ma futir li kasratil xidmati fii ma qad umir kon nag loolu bokk na ci li nga xam ne bu ñu dee liggéey di daan doole euh, dana ko jur bokk na ci njariñ yi liggéey di daan doole mooy nit ñi dañuy dañoo yàgg xeebante kenn ku ne di xeeb sa moroom waaye nag soo dee daan sa doole di ko defandoo ak nit ñi da da da dañuy xam ne danga leen a nawloo ñoom it dañ dañ leen nawloo kon daal njariñ liggéey kenn mënu koo lim kon foofu lañ koy tënk ñu ngi ñaan yàlla sunu kilifa gu mag gi ne ci kanam mbooloo mi yàlla gën koo sàmm gën koo may wér gën a guddal fanam ba li mu yéene lépp mu man koo jëf ci sago te nu ànd kook moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi Mm-mm. <clears throat>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 أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت المحصين على عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أنه الله شهادة عبد وهرت طويته وأسرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت من يطع الله ورسوله نال من خيري الدارين ما نوى ومن يعصهما فقد غره الشيطان والهوى أما بعد فيا أيها الناس سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واغتنموا مواسم الخيرات وقد خطت لكم ركابها وتعرضوا لما يرد عليكم من النفحات فقد فتحت لكم أبوابها وتعرضوا لنفحات ذي الجلال بالصلاة والسلام على الواسطة في سعادة الحال والمال واستغفروا ربكم وله أنيبوا wa iyaahu faraaqibu zalikum allahu rabbukum fa tabaaraka allahu rabbul aalamiin huwa alxayu laa ilaaha illaa huwa wad'uuhu muxlisiina lahu ddiin alhamdu lillaahi rabbil aalamiin الحمد لله حمد من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا لا أحصي الثناء عليه ولكني أصل ما كنت له بترك حمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا عباد الله اجتهدوا بالعمل الصالح قولا كان أو فعلا واعمروا الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا وأخلصوا العمل فإنه لا يقبل منه إلا ما أريد به وجه الله العلي الأعلى wa tahhiru sarairakum min qabli an yaatiya yawmun tuxtabaru fihi sarairu wa tubla waqifu bayna yaday illahi mawqifa aldulli walinkisaar fa inna man waqafa bibaabihi fataha lahu wa yassara asbaabahu wal inaabatu ila llahi subhaanahu hiya asaasu saadati wal qurbaat wa miftaaxu abwaabi rahmaat fal kullu min cibaadillahi saalihiin laa yatruku zanbu saaxata saaxata janaabihi al aziz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 على والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله نعبد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 هبنا Allah asalaamaaleykum.